Monsieur Penda Ndiaye Sissé, président de l'association des anciens élèves du lycée Kennedy. Une association que nous avons créée en 2015, un peu pour euh, venir accompagner euh, l'administration du lycée euh, dans euh, tout ce qu'ils font pour les élèves. Cette association intervient au niveau social, mais nous les accompagnons aussi au niveau pédagogique pour permettre au lycée, aux enseignants d'avoir Euh, les meilleurs résultats scolaires au niveau de nos élèves. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'appel de nos sœurs, euh, toujours kényanes, qui, quand elles nous ont approchés pour nous parler de ce, de ce geste qu'elles voulaient faire à l'attention du lycée, nous avons répondu favorablement. Parce que ce qui nous intéresse, c'est ce lycée. Ce lycée qui nous a fait, qui a fait de nous ce que nous sommes devenus. C'est pour ça, dès, à chaque fois qu'on nous appelle pour ce lycée, que ce soit l'administration, que ce soit nos autres sœurs, nous répondons toujours présentes à l'appel. Et nous remercions nos sœurs de nous avoir associés à, cet événement aujourd'hui pour apporter, en apportant notre contribution, pour permettre à l'administration, Madame Sarr, Madame euh, Fatima Tassoussa et Madame le censeur, et l'ensemble des, des, du corps enseignant, des surveillantes, de pouvoir démarrer cette reprise qui était prévue pour le 2 dans les meilleures conditions. C'est vrai qu'il y avait d'autres euh, interventions, le ministère de l'Hygiène, la ville de Dakar, mais nous avons voulu apporter, euh, participer, donc contribuer à cette euh, à l'intervention donc des, toujours canadiennes qui sont nos sœurs, que nous encourageons vraiment parce que c'est elles sont venues euh, avec une noble ambition de remettre au lycée ce que le lycée a fait pour elle. Donc nous vous encourageons, nous les félicitons. Il y a plusieurs initiatives, mais le fait de nous avoir associés, nous vous en sommes reconnaissantes. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui en délégation. Et euh, dès qu'on en a parlé à nos autres membres, chacune a mis la main à la poche pour pouvoir apporter la main à sa contribution. C'est une contribution symbolique des anciennes tout court. Donc, euh, nous vous remercions encore. Félicitons l'administration. Madame Sow, qui vraiment Euh, nous sollicite à chaque fois et nous a même coopté dans le comité de veille. Nous avons participé avec euh, plaisir et euh, nous sommes là. Nous sommes à la disposition de notre lycée que nous voulons toujours, nous voulons avoir les meilleurs résultats dans ce pays, que les élèves aient les meilleurs résultats aux examens. C'est pour ça que nous voulons, avec le corps enseignant, les encourager et vraiment pour qu'on y arrive. Merci beaucoup. ba ñuy laata daje fii ci lycée Kennedy ba ñuy nekk ay xale yu tuuti mm, nekk ay njagamaar fukki at ak ñaar fukki at ak ñett ba ñeent ñu daal di màgg ba terminal ku nekk njaboot jàpp jàng yeeg njaboot jàppala la ba bés ñëw ñu daal di daje fas yéene sargal euh, benn ci directrice yi fi nekkoon nga xam ne ñoo ñu jàppoon uuf ñu moom ak équipe ñoo ñu uufoon suñ première ba terminal ba ñuy yeggalee loolu la mu dajale ci ay nit yu loolu soxaloon ba ñu ci weesoo ñu ne nag mbooloo mi ëpp na tas ñu daal di dajaloo waat continuer ba lu mel ni lii daal di judd foofu am ci ñoo xam ne dañu ne faaw wu ñu dellu ndaxte lii neex na neex boo faw wu ñu dellu delloo njukkal suñu école ñu daal di dox mbir mi daal di waaxu si ñëw fii école lycée John Fitzgerald Kennedy fekk si madame Sarr proviseur ne ñëw ne ko nag suñuy tànk moo di fas yéene delloo njukkal lycée Kennedy ñëw seet rek lan lañ fi war a mën a def ñu jàpp ci du wees e mu ne ñu ñoom kat fi mu ne lii dalal ñu bu baax tubarkalla macha allah na ñu fi nekk soxla bi dëgg dëgg dëgg dëgg mooy liy riir ci dëkk bi la rentré des classes des classes d' xale yi toll ci examen ñëpp xam nañ ko ne umpalewul ne mooy ñi waroon dugg si ñëw dellu si waat jàng si ndax examen yi waa ñu pare woon ko pour le 2 juin bi passé eh, ñu daal ci jàpp daa nekkoon bopp donte du doon lii rek moo noonu suñuy tànk lii ndimbalkat da cay fekk nag da ca ca la nit ko soxla ñu ne xaar ñu jàpp ci loolu après xëy na du ñàkk ñu wéy ci leneen ñu daal di jot nag am ñu ñu seeti ñi ñu seeti nañ ci lim suñuy mag yi nga xam ne ñoo ñu fi jiitu woon ndaxte lii ñuy def du ñu ne guleet am na ñu fi jiitu woon ñoo xam ne seen loxo daanaka mën nañu wax mosul jukk fii ci sa lycée Kennedy mooy euh, l'association des euh, des anciennes élèves du lycée Kennedy avec euh, à sa tête madame Ndiaye Cissé voilà ici présente ñu di ko sant di ko gërëm mu ànd ak ñu wax dëgg neex yàlla ci mbir bi bu ñu yëkkatee bu ñu yëkkatee bu ñu tegee mu teg ah ba mu daal di jur lii mu jur ñu ne woon nag tey jii fokk nag ñu bàyyi xel ci ndimbal mi li nga xam ne ay motuwaay la ñuy jël ñeel xale yi bu ñu egsee la ñu war a doxalin bi ñu war a doxal moytu yi ñu war a moytu aar gi ñu leen war a aar mën a sotti eh, euh, li ñu mun rek nag ni def defuñu lépp nag waaye yal na yàlla xeeb dolli euh, sunu sunu yéene sunu yéene ëpp la bëgg nañu def du lycée Kennedy école bu ñu ràññee naam ràññee nañ leen ñu yokk loolu rek lañ ci bugg ngir delloo njukkal rek li si kenn ndaxte ñun ñii dem nañu ba ñi fi ne daanaka presque suñu ay sët lañu waaye ah ñu ne nag euh, du wees delloo njukkal ne waa waa waa góor wala waa kumba daal ah euh, xorom la ci mbir mi.